alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajma'iin amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci ab yonentam di ñaan mu boole ñu tawfiq boole ñu saxal ñu ci diineem ji boole nu jaarale nu siraatul mustaqim barkeelal ñu itam sunuy waxtu ak sunuy jëf yi nuy jëfe ci biir waxtu yi ci xutba yi jàlloon tudd nañ lu bare bari ci lu aju ci waxtu ak nuñ ko war a fonke ak nuñ ko war a ormaale ak lu bare bari ci yi nga xam ne dañuy sànq waxtu junjaale woon nañ ko waaye suñ waxtaanu tey la ciy ëpp solo mi ngi jëm ci yi nga xam ne dañuy sànq waxtu nit nit nag boo xoolee yi sànq waxtoom yaari yëf rekk la lenn li ci boppam lay jóge moom ci boppam leneen li ci des ci li ko wër environnement bi ko wër ñooy sànq waxtoom su wattuwul lu bari nit ki bu xoolee boppam xool keneen moo xam ci liggéeykati àdduna yi la wala ci liggéeykati àllaaxira yi dangay dem ba mu yàgg nga ne waaw diw lim mën a def moo xam ci liggéey la wala ci wàllu jaamu yàlla te mënuma koo def xanaa bokkuñu rek ne vingt quatre heures la am ma am vingt quatre heures fekk na ox kay vingt quatre yi yenn yee waaye day am ñoo xam ne seen yitte leen yëkkati nañuy farloo ci amal ko ci biir ñaar fukki waxtu yooyu ak ñeent muy bis bi bokkul ak ni ngay farloo yow ci amal sa yitte ci ñaar fukki waxtu yooyu ak ñeent muy vingt quatre heures bokk na ci nag gàllankoor yi nga xam ne day yàqal nit ki waxtoom te jóge ci boppam jógewul ci keneen li ñu tudde al xafla al xaflatu nag mooy càggante wala ñàkk ak yëg ñàkk ak yëg kooku nag feebar la boo xam ne dal nañu baree baree bari moo di seeni waxtu mën nay dem te fekk jëriñuwuñ ca te yëguñu ne waxtu wi dem na yëguñu ne it jëriñuwuñ ca kooku mooy càggante moo tax càggante dafa doon loo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ko ŋàññi lool ba ku sàggan sax dafa wax ne malaa ko tane malaa ko tane tëkku ko sax ne càggante dana ñoddi nit ki ba yóbbu ko jahannama yàlla ñu yàlla musal ci loolu moo tax mu ne wa dara darana li jahannama kathiran min al jinni wal ins nee na jahannama bind naa ko mu ñeel lu bari ci nit ñi ak jinne yi ñooñu mooy ñan mu ne ñi nga xam ne am nañ seeni xel waaye duñ ko jariñoo ñi nga xam ne ñi ngi yor seeni bët ne xifeet di xoole waaye day mel ni gisuñu ndax gisuñu lu mat a gis yor seeni nopp soo waxee ñi dégg ko waaye dégg nga du doon dégg guy jëriñ nee na ñooñu day ulaika kal an'am ñooñu ñoo jur gi ñooyam mu teg ca ne balhum adal ñoom sax ñoo gën a réer jur gi ñuy sàmm ñooñu mooy ñan mu ne ulaika humul ghafiluun ñooñu mooy ña sàggan kon jullit bi toog xëy ba ngoon waxtoom lépp dem jëriñuwu ci ci àddunaam jëriñuwu ci ci wàllu jaamu yàllaam ba noppi yëgul ne waxtu wa dem na kooka kooka moom la càggante dal kooka moom la càggante dal bokk na ci yooyu it li ñuy tudde négligé mooy taswif lu mat a def lu ne rek nga ne danaa ko def danaa ko def suñu waxee rek nga ne danaa ko def kooku ma ne lu bare bari ci dund jullit yi moo ko sànk te al imaam al xasanul basri day wax ne wattandikul négligé wattandikul lu ñu wax rek nga ne danaa ko def ndax yow kat li am importance ci sa dund mooy tey mooy tey waaye du ëllëg ndax ëllëg ëllëgi yàlla comme ni ñu koy waxe li wóor mooy wóorula ndax da ngay àgg am déet kol bu ne ëllëg danaa ko def wala gannaaw ëllëg danaa ko def tàmbali léegi su la wóoroon ne da nga dund ba ëllëg wóoru la buy ëllëg di ñëw ban gàllankoor lay indaale mën naa indaale feebar yàlla nañ ci yàlla musal mën naa indaale soxla soo xam ne day dox sa diggante ak li nga bëggoon a def mën naa indaale xeeti ngànt yoo xam ne bu ci ñëw rek tax li nga mënoon a def tey te defoo ko ba ëllëgee doo ko mën a def kon jéemal sa dund li ci aju ci sa àdduna li ci aju ci sa wàllu jaamu yàlla bis bu set lam ci yeeyoo balaa jàll jox ko ko na ko yóbbaale waxtu wu jot sax balaa jàll na yóbbaale lam war a yóbbaale kon toog loxoy neen toog loxoy neen amul ci dundu jullit fu mu toll mi ngi yëngu ci lu baaxal àddunaam walla mu nekk ci lu baaxal alaxiraam wala muy noppalu ab diggante ngir mën a jóg delluwaat ci yaar yooyu kon waxtu neen woo xam ne dañuy wax ne jullit bi deful dara fi mu nekk woowu waxtu amul te rawatina lu aju ci wàllu topp yàlla yi nag ki koy yeexe naan fas na maa yéene def nangam wala ba waxtu sangam jotee ma def ko su jàllee mu ne bu ëllëgee danaa ko def kooku bu yàggee waxuma la naafile yi sax waaye day dem ba farata yi ci boppam daf koy doya dal moo tax waxkat ba day wax ne yóbbulul defal sab yóbbal muy ragal yàlla ndax xamoo bu jant soo ndax yow fajar dana la fi fekkam déet kon gaawal yóbbulu ci topp yàlla li nga ci mën a yóbbu mu ne ndax kat bari aana ku xëy mucc dara dalu ko mu jekki-jekki faatu te feebarut bari na it nag ku feebar ba ñépp ne ah kii de moom yàq na yaakaar nañ ne léegi waxtoom jot waaye nee na borom ba bàyyi ko fa mu dund dund bu yàgg loolu lim ci jublu mooy ak wér wér gi yaram bu mu la nax mukk ba nga ne ah man de jógaguma fi yaakaar naa mën na maa nekk ci yii ba mu yàgg su ma demee ba màggat wala ma tële door a tuub déedéet ndax wér gi mën na fee nekk ba noppi <clears throat> du tey jóg fi moom bu jotee jóg fi day am donte wér gaa ngi fi ñàkk a wér it mën na fee nekk te taxagul nga jóg fi léegi kon loolu ma ta bàyyi xel la mu ne bare aana koo xam ne mi ngi yor ak wéram di xëy di gont di waaxu di dem te ndeke càngaayam yooyu ñaw nañ ràbb nañ ko ba teg ko te moom yëgu ca dara fekk ay càngaayam ma ngay tege kon bokk na ci ba tey yi nga xam ne day sànq waxtu te jóge ci sa bakkan yow doomu aadama mooy waxi caaxaan waxi caaxaan nag dafa dem ci sunu jamono ba doon bunt bu yaatu boo xam ne dem na ba dugg sax ci biir ci biir xam-xam jullit bi su jëloon li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax def ko mu doon ab làmpam bi muy doxe ci dund gi kon dana mucc ci yii yépp mooy yonente bi alayhi salaatu salaam dafa ne bokk na ci sa lislaam mën a rafet mën a baax mooy bul dugg ci lu la itteelut bàyyi lépp loo xam ne sa itte newu ci du la jariñ àdduna du la jariñ àllaaxira bu ca sa yoon nekk bàyyi ko min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi lépp lu la itteelul bu ca dugg loolu su fekkoon ne jullit bi jëfandikoo na ko kon dana mën a ñoŋal lu bari ci ay waxtoom waaye boo xoolee lu bari ci nit ñi da ngay yëg ni seen genn wàlluk dund wala lu bari ci seenu dund dafa sànku te fekk li koy sànk mooy ittewoo loo xam ne du seen mbirum bopp ñoom la muy jagleel nit ñi di ko wax ci seeni der moo xam xeetu jëw la moo xam xeetu xaste la moo ëpp lañuy liggéeyal seen bopp te loolu kenn ku nekk xam na ne lu xaraam la toog loxoy neen rek defoo dara kooku pertement la ci jullit bi naka nag su fekkee ne waxtu way jàll far ci mooy yàlla la koy def kon kooku perte nga jéggi na dayoo ndax bindal tuñ ko tuyaaba waaye ñu ngi koy bindal bàkkaar nga gis ñoo xam ne biir xam-xam sax buñ ci dee wax masala yi ñuy dugg ak yi ñuy wax daanaka ci seenu wàll ñoom caaxaan la ndax doonut loo xam ne lu leen ñor la am na lu leen gën a itteel loo xam ne mooy li jamp mooy masala boo xam ne soo ko xamee rek jëf daal di cay mën a tegu nga gis ñoo xam ne la ñuy gëstu ak di ko jéem a xam di ko jéem a xam ñooña suñ ko xamee itam jëf du ca tegu te suñ ko xamut woon kenn du leen ko laaj ci bàmmeel képp ku ñuy laaj boo seetloo nit ñiy laaj da ngay gis ne lu mel noonu da nga ci da nga ko ci gendiku day gis ku jékki-jékki di la laaj iblis am nay dooma ndax am na soxna ndax góor la ndax jigéen la mbir yoo xam ne ñàkk gee xam du lor xam gee itam amul benn njariñ kooku mooy fudulul ilm daf ñuy gaar ba ci léeg-léeg nu fexe ba boroomu xam-xam dikkenu nga xam ne danoo war a góor góor bu baax a baax a baax ba waxtoom du sànku suñ waxtu du sànku war a mën a tànn masala ya am njariñ xam ne boroom xam-xam waxtoom lu cher la lu jafe la su dikkee nga tànn masala yoo xam ne ñépp xam nañ ni yii mooy yañ doon laaj bëkk démb ak démb rekk ñu nar a passé jataay bi ci laaj lan daan laaj nga xam ne li ëpp ci nun sax kii nu koy laaj boo demee xam nan la ciy xalaatam ba noppi waaye dañ koo bëgg a déggaat wala mu ne man naa ko ko laaj mu tontu ma su boobaa yaa ngi sànq sa waxtu yaa ngi sànq waxtoom bokk na ci li mbokk yu bari di def waxtaankat wala boroom xam-xam boo xam ne danga nga koo woo mu ñëw nga ne ko sa waxtaan wa nga defoon bërëb sàngam laa bëgg nga defal nu ko fii waxtaan woo xam ne defoon na ko dugg na ci kaset tasaaroo na fu nekk àgg na fa nga ñëw bëgg mu jaaraat ca waxaat la mu waxoon su boobaa waxtoo ngay sànku waxtoom mi ngi sànku moom ci boppam yéen ñi koy déglu seen waxtoo ngay sànku ndax kenn ku nekk mënoon naa jël kaset boobu déglu ko mel ni déglu na ko mu jeex tàkk kon na jàll na seq beneen jéegoo nañ ko wax waxloo ci leneen lu bokkut ak la mu waxoon su fekkee ne am na leneen lu bokkut ak la mu waxoon su demee nag ba mu wóor ko ne li mu xamoon wax na ko ba mu jeex mi ngi ci kaset yi mu ne laa ah, mbokk yi kat la ma xamoon jeex na wax naa lépp ku soxla dara dellul ci kaset yi ku am looy laaj nag wala nga am looy fàttaliku soo ma ko yëgalee su ma ci xamee dara naa la ca tontu su ko defee jullit yi danañ mën a respecté seen bopp mën a respecté seen i waxtu ba du sànku loolu ay mbir la yoo xam ne yu ma a bàyyi xel la bokk na ci it nag yi sànq dund gi te fekk dafa jóge ci yow mooy moye yi am ci jamono ji te doon moye ñaari boor mënees cee jariñu mënees cee loru loolu bokk na ci yi ñuy jëfandikoo ci wàllu presse moo xam journal booy jël di ko jàng la wala rajo booy yor di ko déglu wala télévision booy toog di ko seetaan am na lu bari ci nit ñi ñoo xam ne seen waxtu ci béréb yooyu ci lay sànkoo liñ koy jox ci waxtu yeyoowu ko ëpp na ndax ki ñëw toog ci télévision bi di seetaan te xamagul ban programme lay seetaan si lu ko yëkkati waaye dafa ñëw rek di xool lu ñëw mu xool kooku mi ngi sànq waxtoom ndax ab télévision wala ab rajo doonut loo xam ne lu ñuy dégloo noonu la da ngay xam ne kay am na lu am tey loo xam ne wóor na la ne lii amal na la njariñ ci sa àdduna wala ci sa ëllëg nga dàkk waxtu wañ koy def ñëw seetaan ko mu jeex nga dellu ci sa liggéey waaye rek damaa ñëw sama programme mooy appareil bi ci sama kanam ma di ko déglu wala ma di ko seetaan kooku sànku waxtu la ndax lay romb ci lu amul njariñ kenn xamul mu toll lay romb ci loo amul njariñ kenn xamul nu mu toll naka nag lay romb ci loo xam ne luy lor la te loolu itam day bari lool kon jullit bi toog la koy romb jëriñu ko rek ma ngay perte waxtoom naka nag su fekkee li koy romb ci boppam lu koy lor la far kon kooku ñàkkul waxtoom waaye ma ngay perte ak dundam te yëgu ko te minutes yi lay romb bokk ci sa dund la chaque ne yu la amal njariñ la lu baax a baaxoon ci yow la kenn ku nekk xam na ne noo ngi toll ci jamono joo xam ne waxtu dikkati na woo xam ne suma ma saan ñëw lu bari ci ay waxtu sànku mooy li ñuy tuddee daje gi àdduna di daje di jëfandikoo bal di football ñi naan ko coupe du monde xam ngeen ne waxtu wa muy tàmbalee jot na lu mat weer wu mat sëkk woo xam ne doomi jullit yi ak seeni ndaw kenn xamul ñaata million ñooy toog benn bis bu nekk ay waxtu yu bare bare bare bari jox ko seen bopp seetaan lool yi su ko defee mu jàll yóbbaale seenu dund yóbbaale seeni waxtu ci loo xam ne wóor na la ne moom du jaamu yàlla moom li gën a néew ci luñ ci wax mooy kane dagan na day wax rek dagan na nga seetaan ko su fekkee ne amuloo leneen looy defi lu ko gën di farata waaye jullit bi war naa mën a am leneen lu ko gën di farata loolu moo tax yu mel noonu lu ma a bàyyi xel la amaa nag yi lay gàllankoor te jóge ca bitti nga xam ne mënoo ci dara day jekki-jekki rek am yooy ab lim la danañ ci tudd rek ñett yi ci gën benn bi mooy ziyaaratul a visiteurs yi nga xam ne dañuy jekki-jekki rek ne jalañ dañuy jekki-jekki ne jalañ dugg ci sa biir waxtu ci lu dul ak yëglu lu dul ak waajal dagg sa programme toog waxtaan ba mu neex nga jóg ne dama fay jaaroon rek maa ngi dem ñooñu ci ñi sànq ay waxtu ci lañ bokk mëneesul nag ku ñëw ku nekk nga ne ko bul dikk ndax bu yàggee ñu ne ah diw kat moom kenn mënatu faa dem léegi waaye warees na ko mën a organiser ba ki bëgg a ñëw ñu xam kañ lay ñëw nga ne ko waxtu sàngam kaay su loolu amut dem ba xat-xat am xanaa ñu jéem a jariñu ci xat-xat yooyu ci ni al imam ibnul jawzi daan def ci waxtoom fonk gum ko fonk tax na da daan seet liggéey yi nga xam ne mën naa ànd ak di doomu aadama yooyu du ko def da koy ber fële saa bu doomu aadama ñëwee juy visiter si salaamaaleykum waaleykum salaam bisimilah mu toog di waxtaan buy wax ana waa kër gaag na ngeen def mu nga ca liggéey yooye nga xam ne mënees na ko booleeg waxtaan lu mel ne na muy sote ay xëlimaam ak na muy jekkale ay këy këyitam ak téere yam bindoon ba àggal nu mu koy toftaleeg yooyu yëpp buy waxtaan ak moom yooyu da ko koy jagleel kon loolu ci seenu fànk waxtu ñoom <coughs> ci la bokkoon doomu aadama ji su demee ba loru ci mel noonu loola rek moo fa sës waaye nag jullit yi war nañu man a demit ba weesu foofu moo di bépp siyaare boo xam ne doonul ngant la bettiwul ndax am na siyaare yoo xam ne moom mënees koo yëglu waaye nag su fekkee lu mënees a yëglu la ci jamono jii nuy dund mooy jàppandi na man nga naa diw kat dama fi bëggoon a ñëw am naa soxla mu ne la bis sàngam waxtu sàngam ñëwal bu boobaa waxtu wa bàyyi na léppam di la nekk su ko defee boo ñëwee waxtu woowa lam la jox ci ay minutes yaa moom su boobaa yaa moom lu am njariñ lay doon du loru te yow itam doo loru waaye nag nga góor góorgóorlu ba waxtu moom la wax bu jotee itam nga ñëw ndax soo ñëwul te fekk bàyyi woon na léppam toog waxtoo ma ngay sànku ñaareel ba moo di jëmmi téléphone yi ñuy jëfandikoo li ciy dem ci waxtu bari na lool junjoon nañ ko ci li weesu téléphone boo xam ne kii wax li mu wax war na ko mën a wax ci ñaari baat mu wax ko ci juróomi minit loolu sànq waxtu la téléphone boo xam ne kii li muy wax ci téléphone bi ma mëneesoon na ko lijjanti ci lu dul jaare ko ci téléphone kooku mu ngi sànq waxtu kon moom itam lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la moo ziyaar yooyu jàll lu mën a gàtt na gàtt lu mën a ñàkk na ñàkk beneen bi ci des moo di xew yu bari yi nit ñi kariyeel seen bopp ba noppi ku ci am wenn fas yéene ñépp ñëw ku ñëwul ku nekk yaraange dal ci kawam nga ne daf maa yëgut wala daf maa faalewut dañuy fekk xew woo xam ne wenn la ko lislaam defoon <clears throat> ñu séddale ko ba mu doon ñett wala ñeent lislaam ci sëy lim xamoon mooy nit ki fas nañ ko sëyi na kon xew wi mooy lan mooy céet gi waaye dangay gis ñu ñenn ñi <clears throat> labat bi réception la boo xam ne dañuy invité nit ñi ñëw ñu ne dafa labat fiance dem ba mu yàgg ñu ne ah tey kat lañ koy takk takk nañ ko tey weneen xew a ngoog dem ba mu yàgg ñu ne tey la war a sëy weneen xew a ngoogooti <clears throat> te ñetti xew yooyu yow mi xam waa ji jaxasoog moom woo ci demul wu nekk ngant la ci ngant du la jox ngant te jàpp ne ñàkk koo yëg wala ñàkk yitte la ma ne kon ay tawata ngi ci biir société bi yoo xam ne waxtu yi nit ñi mi ngi ci sànku te bàyyiwuñ ko xel na ko nit ñi jéem a bàyyi xel jéem cee jàppale seen mbokki jullit yenn yi mën a woyof ñi woyofal ko yi mën a ñàkk ñi ñàkkal ko te seet la mënta ñàkk ci yi nga xam ne lislaam santaane na ko mu doon aw tëralin wu leer nañ ñu sukkandiku ci yooyu boo gisee ñu baree bare bari di jàpp ne diine dafay tardeel aw xeet boo seetee ya cay tardeel nit ñi nit ñi ñoo ko ci defal seen bopp waaye du diine moo ko indaale ñu bari di foñ diine ngir jàpp ne day sànq temps nit ñi dañuy yàq seeni alal dañuy def nangam kon diine day mel nii day mel nii day mel naa boo seetloo dangay gis ne loolu nekkul ci diine ji waaye nit ñi ci seen jëmi bopp ñoo ko ñoo ko tëral seen bopp buñ xoolee nag mbokk yi danañ gis ne li ñu mujjantale mooy li tax fonkunu waxtu yu bari la yoo xam ne ku ci bàyyiwut xel mën nga bañ a fonk sa waxtu doo ko yëg danañ ci tudd tudd bu gaaw bi ci jëkk mooy waxtu dafa doon loo xam ne buy dem du yëglu doo ko yëg lu fi jaar ba dem la te doo ko yëg bi ñuy wax ak yow léegi rek juróomi minute ci gannaaw yëgoo ne juróomi minute jàll na kon waxtu noonu lay def ba jeex muy bés bi muy weer wi dangay ngay toog ba mu yàgg nga yëg ne ah diggante bi di ko weer wi dee na faat nga fekk dem na loo ca def yàlla moo xam kon gaaw gee dem te du yëglu ci lii tax muy sànku ci la bokk bokk na ci it mooy lu bari ci sunuy aada ak sunu doxaliin ak sunu dund buñ xëyee ba ngoon yu bari yu ci nekk yuy sànq waxtu la yu ci bari itam préparé luñ ko ne nangam dana am kon war naa ko préparé nangam ba sama waxtu du ci sànku yooyu yëpp bàyyi wuñ ko xel lu baree bari ci waxtu nit ñi circulation bu jógee fii jëm fële képp balaa àgg lu bari ci waxtoom dana sànku te du ko yëg kan ci nun mooy def ni ñenn ñuy def nga xam ne fu ñu duggee ci baas wala ñu dugg ci ab terrain wala yu mel noonu terrain li ñuy def mooy yor dara loo xam ne lu ñuy jàng la lu leen amal njariñ wala lu ñuy déglu wala mu doon ku dara nekk ci xelam mu di ko tari yu ci bari itam préparé luñ ko ne nangam dana am kon war naa ko préparé nangam ba sama waxtu du ci sànku yooyu yëpp bàyyi wuñ ko xel lu baree bari ci waxtu nit ñi circulation bu jógee fii jëm fële képp balaa àgg lu bari ci waxtoom dana sànku te du ko yëg kan ci nun mooy def ni ñenn ñuy def nga xam ne fu ñu duggee ci baas wala ñu dugg ci ab terrain wala yu mel noonu terrain la ñuy def mooy yor dara loo xam ne lu ñuy jàng la lu leen amal njariñ wala lu ñuy déglu wala mu doon ku dara nekk cim xelam mu di ko tari di ko tari li feeg muy àgg foofu bañ a tardé waxtu woowu nga xam ne waxtu wu yàgg la mu di ko passé ci biir oto bi wala ci biir saxaar gi wala ci biir la ñuy dugg fexe ba jariñu ca loolu néew na ñu koy def te lu am solo la lu yi rawatina nag ci biir liggéey yi nit ñi di liggéeyan liggéey leente nit ki ñëw nga ne dama lay liggéeyal nàngam nga ne ko waaw demal defal ma ko naa ñaata la mu ne nangam xamu leen kañ la koy tàmbali kañ la cay noppi xamuñu ko day dem rek mën naa doon lu ñu war mën a liggéey ci juróomi fan mu am ca weer saa boo ñëwee ne ko noppi naa mu ne la noppeegut lu tax mooy itte woowu leen woon kañ lay tàmbali ak kañ lay pare te loolu lu am solo ci bépp liggéey bu mën a doon la kii liggéey su yëgul ne lii muy def da ko war a tàmbali te bis sàngam war naa pare su parewul ci bis boobu am nag lu ko war a mën a dal ci kawam ci xeeti ndaan war nañ koo daan kooku sagoom lay liggéey te kuy liggéey ku nekk yor ca ay client ak bu mu mën a doon liggéeyatoo sago ak lu mu mën a doon kon loolu mbir yu mat a bàyyi xel la bokk na ci itam nag ñàkk jox waxtu wi ci boppam importance danaa dellusiwaat ci wax ne mbokki jullit yi waxtu lu rëy la suñ jàppoon na tey nit a ngi koo xam ne mi ngi ci soixante dix ans am na juróom-ñaar fukki at ñi xool su fekkoon ne juróom-ñaar fukki atam yooyu bis bu ne sànq na ci juróomi minute loolu kon ñetti weer la ñetti weer sànku na te dañu lay limal ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne téere yu mag yow yoo xam ne soo ko doon jàng tey da ciy sonn ñu ne la ci fukki fan la ko taalif kon ñetti weer ci dundu jullit du lu ndaw nga xool nag juróomi minit képp juróomi minute yooyu su yëkkati woon ba nekk fukk juróom weer la su yëkkati woon ba nekk ñaar fukki minit képp bés bu set kookum at mu mat sëkk la ci biiru dundam moo xam ne dafa sànku su ñëwee ba mat waxtu nag kooku ñetti at la su ñëwee ba mat fukki waxtu ci bis bi te lu bari ci nit ñi lu ëpp fukki waxtu sax day sànku ci seen bis kooku fanweeri at la kon nit ki nga xam ne fanweeri at sànku ni ci ak dundam kooku daanaka def fi dara su ci dugalee li muy nelaw boole ko ci day gis ne lam dese tuuti la kon boo gisee kon nit ñi di dund yàgg fi jaar fi def fi lu nekk dem ba noppi bàyyiwuñ fi dara defuñu dara itam la ëpp ci lu koy bari lu koy waral mooy waxtu yu sànku waxtu dana sànku ci ñàkk def dara waxtu dana sànku ci def fa loo xam ne mënoon nga faa def lu ko gën kon jullit yi faaw ñu dellusiwaat bàyyi xel bu baax a baax suñu waxtu yi yàlla na suñu borom tabaraka wa taala barkeelal suñuy waxtu barkeelal suñuy dund eh, dimbali nu may nu ay kattan ak ci man-man ba yi muy santaane ci lu jëm ci luy baaxal suñu àdduna ak baaxal suñu alaxira nu mën koo liggéey ayuha al ixwatu almuminuun udkuru allaha ala وصلوا وسلموا على رسول الله فإن الله قد أمركم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واحم حوزة الإسلام wakfina kayda alkaa'idin wa makra almaakirin wa sixra alsaaxirin wa bagya albaagiin wa tugaat almutamarridin wa junuudi iblisa ajmain allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka xamidun majid